na nga def wóor na yàlla yaay sama fas man yow yaay sama star man. ah yow foo ma xamee. taaxuraan gi ngay def. man mi sa programme sabar barki dem maa nga fa taxaw père. nga gis mais père li nga doon fecc if boo fecc ba def lii. maa fa toj <laughs> sama groupe la maa ko moom. yow foo jógee non père yaay sama fans ba états laa jógee man États-Unis laa jógee. foofu nga nekk. fa laa nekk fa dëkk. fa ko gi dama koo gis rek laaj la foo jóg. oui états dëkk. mais man ana ya. ñàkk ñëpp nga fa fekk foofu rek laa bëgg a dem. dinaa la fa yóbbu ci laa nekk sax nii. man nii parce que ba ma la seetaanee. Hmm. dafa ma delloowaat démb. waaw xam nga taaxuraan sama maam da ko daan def. man sama maam da ko daan def. wallaay donc ñun ñu nekk bitim réew. man et man sama liggéey hmm. mooy damay jël euh, ay musiciens ah ay artistes ay et tout di leen yóbbu états yow mii bien sûr mais ba ma la gisee dama ne il faut ma am say coordonnées. man maa ngi yóbbu la États-Unis ak sa groupe bi. ngeen defal ma taaxuraan bu rëy. man nag fi mu toll nii du ku nekk may jot. Mhm. waaw du ku nekk ma mën a jot. nag nga. ah jox ko sa numéro. sama ko sa numéro. moom moo res euh, bagage yooyu yëpp. waaw mooy sama ménageur la. ah sama ménageur la. kii toppatoo la sama sama la sama cuksu la. sa doom la. tukkus sa tukkus maanaam. hee booy. yàgg gu ngeen yàgg ca réew ma la. ah nee na waay sama tukkus ah, la gelam gelam nga quoi gelam euh, nga quoi. waaw wax boobu rafetul moom laa doon bañ nga àgg ci wax jooju. ok tukkus nga naan kon mën ngaa dugal numéro bi fii ah. sa numéro. na nga def mais père bokkoo yàlla maam yàlla bugguma ci sax a bokk. maam yàlla may ñu ndoxum wala nga. ngooki ngook am na beneen wax jam fooree jum jum sa siir. ay day yaayu may jam fooree. ñu ñu boobu nag koy dagg. daal di nuyu mbay. <laughs> noo ko doon defee kër yi. boo nee ah. ah yu mbay. per yow lay wër per non per non. <laughs> waa ñoom Amérique yan xaalis la ñuy utiliser. dollar. dollar xaalis bëri laa lay fay. très bien. excusez-moi. bah oui. Euh, vous avez mis quel parfum. ah ça c'est mon secret ah. ma lu mu wax man sama parfum moom du ma ko sama parfum lay laaj te man. d'habitude ma wax sama parfum bi nga def waaw wax ko ko ma jëndal ko ko non man rek maa ko bëgg di def lu tax waaw parce que man rek maa ko war a def kii sama lépp la ah. wax ko ko ma jënd ko dinaa ko ko mu sa waxi ah dinaa ko ko mu sa waxi <laughs> boobu yóbbu Amérique dinaa la yóbbu Amérique père très bien xam nga man xattan xattan biir New York wax léegi nag yow mag mais loo koy doyee man maa lay wër doy nga ma ndax ku xool sa démarche xam ne mbaax a ngi ci yow sa xol rafet na ku la am am soxna dëgg donc lii ma doon samay tànk du nag ay ay ay affaire de kii yow paa yu màgget yooyu loo leen di doyee te jeunes yu nekk fi coofee ah ngay doyee paa yooyu. man yow laay wër wëruma paa boobu naan ko yaa sama star la may doyee taaxuraan. <laughs> yow laay wër. yow yaa taxoon xoolal yaa taxoon ma def loolu yëpp ah léegi nag li maintenant qu'est-ce loo ci xalaat. war ñu mën a essayer quelque chose quoi pour voir quoi qu'est-ce que déglu naa la bu baax.